ñii di santaane njaay mi njaay leen nangam ñoo war a xoolaat seen bopp ndax ñun bu fekkee fu ñuy jëlee foofu wàññeekuwut buñ fa demee jënd ñëw mu nekk problème li ñuy def dañuy mujjee daw problème boobu noonu. Mhm. moo ñu teree jaay.

Dakar ñu gis ne li leen di denrée de première nécessité yi. Mhm. ba supp 12 novembre nguur dafa daal di joxe woon ndogal ngir ñu wàññi loolu yee njëkk. Mhm. ci 20 pour cent. Mhm. boobaak léegi nag dafa mel dafa gën a metti ci ñi leen di jëndkat yi euh, boobu wàññite lan nga ko gisee. waaw euh, wàññite moom bu ñu ko waxee mbégte la ci ñëpp di am. bu ko defee ñëpp lay jëriñ waaye ñun jotoon nañu artu bu teel ñu xamal ne li ñuy togg ñoragut ndax dañoo wooxoon ci ay concertation waxtaan ak ñun ñu joxe ay solution waaye conclusion ñu waroon toogaat waxtaan ñu xam yan dogal la ñuy jël mais dañoo xëy rek gis ay dogal yoo xamante ne dañu ko tegal suñu kanam. ñu jotoon artu wu teel xamal mbir mi mënut a doxee noonu foofu rek ñu jaarale ko ci yoon wi. d'accord voilà. d'accord donc su ma la déggee état avertiru leen dañu xëy rek ñu daal leen ko teg noonu sur la table ne leen da di wàññi njëg bi te loolee ay daan fekk na ca ñenn ñi. waaw loolu eh, ñaari yi fa nekk benn bi mooy ñun détaillant importateurs yi ak euh, grossistes yi ñoom ñëpp dañoo ànd ñun ñëpp dañoo ànd yuuxu wenn bi yuuxu xamal population bi ñii li ñuy def ñoom kese ñoo ko ànd def laajuñ ñu suñu xalaat ci mbir mi mhm. liñ ñu laajoon suñu xalaat appliqué wuñu ko voilà léegi loolu problème la boo xamante ne gis nañ ko suñu kanam ñun ñëpp ñaareelu mbir mi mooy euh, jotoon nañu artu teel xamal leen bu ñu artuwul bu ñu àttewul dañuy bu ñu artuwul dañuy àtte automatiquement il fallait que nous taxaw parce que tay bu gis nañ ni ay junni nit la saisir seen produits def leen ay amende yu métti te gis nañ ne fu mu toll ni fuñ mujjé euh moy waat ndogal wi ñu fexé ba dellu ci wat ginaaw léegi ñi nga xamante ñom ñoom jàppoon nañ leen ba teg la nit daan ñi ngi def ak ñom légui d'accord euh, bala ñoo ñoo ci yooyu lé daan yeen lan ngeen waxtaanoon nguur joxoon ko ay proposition ci lu ni mel parce que suma la déggé yaangi ngi dégg si sa biir wax nga naan euh waxoon nañ leen ni suñu avis mais ñom appliquer wuñ ko lan moo nekkoon seen avis ci boobu lay waxtaan. waaw ñetti tomb yi la ñu waxtaanee woon mooy benn na état fexe ba euh, contrôler euh, chaîne de distribution bi. Mhm. ñu mëna gérer importateur bi grossiste bi ak détaillant bi que bu ñuy àddu dañuy am mo contrôle ci ñom ñett ñëpp fekke du détaillant bi rek lañuy ñuy euh, contrôler man détaillant bi rek lañu mëna gérer uh-huh. voilà ak industriel bi aussi la même chose mais malheureusement état deful tombe woowu tombe wu ñëk woowu moy gis nañ né wa soble dañ fay xëyoon ñom mënu ñu jaay état santané wa sucre ñom ñu xëy ne mënuñu jaay li sucre santaane uh-huh. te pourtant ñi lay importateur lañ ñori ay euh, producteur lañ fi ci dëkk bi fi kon ñu fekk état contrôle chaîne de distribution problème day am deuxièmement deuxième option bi ñu waxoon dañoo euh, dañoo dañoo état buy fixer prix na baye xel nit ki bokoy koy dañ koy wax say frais ñu ngi ni légui am nga 1 de marge wala 2 de marge. mais mënu ñu considérer say frais comme marge pour ñu jaayloo la à perte problème day am. wàññi du mëna am wante dafa melni ni euh, yenn ci denrées yi gisatuñ ko sax nak ci marché bi lu ci melni sucre gis nañ ni euh, boutique yu bari so demee laaj leen dañ nan amul lu ko waral. waaw yéen a banque loxo ba bankaale sucre bi wala. waaw eh, eh, ñun bu coow li commencé amoon na si ñun ñoo xamante ñoo décidé dem grève am ci ñun ñoo xamante ñoo décidé woon boycotter produit yi. d'accord voilà léegi bu ñu gisee ni produit yi nga xamante ne jotoon nañ ko am mu nekk stock ñu ne nañ ko jaay même bu ñu ko jaay perte. Mhm. suñu membre yu bëri déggal ñu ci donte jafe na lool ndax commerçant moom kenn waru ko jaayloo perte. Mhm. waaye ñu nangu woon loolu ndax lan bañ a daanu ci yoon wi nga xam ne tegoon nañ ko fi pour ñu jaay produit ñu yoroon ba ñu jeex léegi nag moo doon jënd benn produit nga ñu ko jaay à perte. Mhm. xam nañ loolu mënul nekk ndax preuve bi leer na ñun bañu ñu jaay ndax boo gisee commerçant jaay rek problème am na. Mhm. man boutique moo ubbi nii lan lenn kese moo tax mu ubbi ko mu ubbi jaay. bu ma demee ba jaayituma rek problème am na. d'accord parce que du ma bañ a jaay te ubbi boutique bi. Mhm. parce que sama charge ñu ma wàcc. d'accord léegi yéen si yéen. duñ euh, leen waxee wàññi leen. ñu wàññiwul. Euh, amoon na ay volontaires yoo xam ne doon def ay euh, dugg ci boutique yi. xool ñi nga xamante ne yokk yokk nañ seen njëkk wala sax ñu taxaw fañ taxawoon wàññiwuñ xaw nañ leen ay daan. lan la ñu mujjee ak nguur. moom lay jooytu fu mu toll nii ndax jàpp naa ne daan leen daan tooñ la. d'accord ndax bu fekkee yow dañu laa jàppee soble kii di importe soble moom mu ne wa munta wàññi soble bi yow nga jaay soble ñu ñëw jàppale yow jàppuñu kii di importer soble bi. ban problème xana day fekk yow da nga new doole rek motax ñu jaala la doole mais bu du loolu mënul nek la preuve ne gis nga génn nañ ben communiqué xamal ne légui ñom bu ñuy fixer soble bi soble marque lañu fixer won kon état bo xamante dañuy def erreur yi doy non ñom xamnañ nañ soble Hollande lañu nek ci di jaay Sénégal ñu fixer prix au soble soble Maroc soble Maroc bi boobu presque jeex soble Hollande mo fi nek ñu ne bu ñuy fixer soble Hollande mu ngi jar 13 euros légui mu jar 19 19 euros te pourtant depuis lors soble baa ngi yokku le peu de gens yi nga xamante ne nañ ko jaay ñi koy jaay ci pen prix bo xamantene 600 francs la ñu japp len fa parce que li ko jëndé 600 francs la ñu japp len ci amande len ci ay junni nit lañ ci japp amande len ci loolu c'est pas normal ñaata lañ len amande ci koppar wala ci euh, dañu tëj seen boutique ne dootuñu euh, jaayati wala am nañ information ci amande ci diggante 75000 ba 1 million francs am nañ ñu ko amande ci biir dëkk bi fi mhm. ba xam dañuy ñëw saisir say produits yóbbu produit yi nga xam ne dañoo bokk ci ñu homologué ak yu bokkut ci yi ñu homologué ñoom ñëpp bokk boole nañ si si si ba xam am na ñuy tëj seen boutique non yëgaguma ñuy tëj seen boutique. li ma yëg daal mooy jël nañ seen xaalis fu toll nii nag ñoom état laay woo mooy ñoom nañu wooxaat nit ñi amoon ñu xam ne dañ leen a tooñoon teguñu ko ci yoon. ñu indi seen i quittance delloo leen seen xaalis ndax loolu kese moo yoon bu dul loolu ci tooñ lañ nekk. Hmm. ñu daal di weesu. Hmm. romb nañ fa ay ñun day mënuñu wax suukar amna na fu mu toll ni ndax quartier gëna a bëri ci Dakar bo démé do fa fekk suukar mhm. ndax état bi mo ñu permettre ñu jaay d'accord man danaka le 12 batay wër wi dé jaay ma suukaru ma lima ci doon am même bu dé 100 francs la doon am ci nangami kilo wala ki ma doon am ci saaku bi 1000 francs 1000 mhm. francs yoy yépp wër wi aw ma état mom ko téré jaay parce que suma ko jëndé jaay ko dama koy jaay perte. Mhm. d'accord loolu am na. kon man bëgg naa suukar am sama boutique parce que bëgg naa jaay suukar lu mënta am lu mënta ñàkk ci la. Mhm. mais état fan la nan la may taxaw bu dee CSS ñoom nangu ñu jaay suukar si. kon daal yéen. Ah. tànk état teggiwul tànkam yéen tam doon teggi seen tànk fi ngeen taxaw su ma la déggee. mais ñun teguñu suñu tànk fenn ndax ñoom ñoo ñu force ñu teg suñu tànk foofu noonu. Mm. ñoom ñooy teggi seen tànk ñun ñu mën a avancer. d'accord loolu mooy solution bi ndax fu mu toll jàpp ñu ne ñoom li ñuy def teg nañ ko ci yoon. Mm-hmm. moo tax ñu doon boo demee marché bi di nga fa fekk soble même bu dee cher na diggante benn 20 jours maximum soble bi yokk na lu ëpp 7000 francs. d'accord c'est pas normal. Mhm. Euh, euh, ci wàllu defar li nga xamante ne mooy. Mhm. Euh, mhm. njëg bi yokk ci li nguur dogal ñu wàññi ko yow en tant que président ñi di boutiquier yi ban consensus nga xalaat teg diggante juboo ñi di grossiste yi nguur ak yéen détaillant yi waaw li ñuy wax jàpp nañ ni c'est tout à fait possible mu à condition état ta ñi di li dil sen diggante ak industriel yi di li ñuy dil seen ak importateur yi ndax fum mu toll nii nañ ñu jël nañ lu ëpp vingt milliards def ko ci ceebu ordinaire bi mm. te impacté wul ci sur le marché ñu ngi ñu ngi subventionné très souvent impacté wul sur le marché d'accord euh, tax ñuy ndar képp suñu waxtaan ma xalaat mooy sa dernier mot ci sa mbokk boutiquier yi nga xamante ne am na sax ñu naan jubawu leen seen biir ak ñi nga xamante ne ñooy grossiste yi war a ànd ak yéen ak nguur nga xamante ne nag moom moo leen te war leen a mën a man li may wax boutiquier yi ñoom ñëpp fu waay munta nekk ki nekk tàngoor yi fële ca ki nekk Ndiolofen fële ca saint louis ki nekk mbuur mbaa dakar fu munta nekk si sénégal lenn kese mooy suñu intérêt moo ñu fexe ba juboo doon benn. mu ngoog dégg ngeen léegi Omar Diallo lu mu wax mbooloo mooy doole nguur joxe na ndigal nag ngir ñu wàññi njëgu dund gi wante ñi leen di ñenn ci boutique yi bañ nañ lànk ne duñ ko def ndax loolee arrangé wuñ leen askan waa nga yuuxu walluy ñun nag ñu leen koy xamal jërë ngeen jëf ba beneen incha allah.